tag fii tag fee tag fële wax fii wax fee wax fële loolu job bi job bi laa ayca mu ngi noonu gox gi sam laa dugg see tey moo tax ma ne su baaxee ñu dem vaar waaye jàpp naa ni vaar du doy waar ndax moor xobar xobar anti stress 2.0 mooy sunu waar ayca loolu dafa neex ndeysaan waa gox gi système eh waa ji la xoolal fën fën la ndeysaan dee bàyyi xel à l'époque dee leen xel à l'époque moo tax tey boo demee ba nekk président da ngaa war a bàyyi xel kala jox président kala jox nguur ga yow Macky sàll exemple nga bàyyi xel Macky sàll nga bàyyi xel Senghor xam ni moo wàccee guur gi ba ci yow loolu la rapport yi ak mbalaxmaan yi war a bàyyi xel ancien yi la deewul la ne woon fii deewul de. te la dee woon tamit day dekki ndax maa ngi nii dekki naa waa gox gi système ay ca ngi noonu ba xanaa nag dañ koy gis ci leneen macha allah waykat yi dee leen jàng way day digle wala mu yeete macha allah dafa am ay waykat yoo xam te ne ñii biir lañuy ñuy woye ñii booli la ñuy woye ñii bakkan lañuy ñuy ñii bët la ñuy woye ñu nopp lañuy ñuy waaye waaye am na waaykat boo xamante ne day sànn àdduna dañ koo topp àdduna dañ koo topp waaye tuflit lay waaye lu galaaw laa la nag tuflit lay waaye moom bu gémmiñ bi tooyul du waay laay laa xëy la laa ay sa xaaral ma laa la leen benn soor rek du moom du moom du moom askan bi yëpp a ngi naan waaw yow kii ban woykat moo fi war a woyee tuf nit yéen a ngi koos woykat boobu noonu taxaw naa leen dimbaara dimbaara dimbaara naa ko lii fulaadoo ah su ngeen tax teew dafay gën a neex loxo sekk wala sekk tuf nit lay waaye Wally Seck yow tuflit ngay way pour lan sa gémmiñ bu tooy doo way lan la lan mooy sa problème ah xanaa mënoo xool si boy yi ku mel ne ay Sidi Diop ah bu dara de mais Sidi Diop booy bi booy bi booy bi at mun na lay woyee bu la ne eh, oh, eh, oh, eh, naan ba ko la dala di jë public bi la xoola fan yi fi mu fël fin décembre bi sexelo ma leem bi man mooma yéem wax naa la béy bi zateem tontu mba baa duma dem ku nekk ngi jéem loolu mbalax bu ànd ak akustik la wuy sama ndey eh waa c'est que da ngay woy pire mais xoolal daf leen ngay wayee Sidy Diop da ngay way biir mais xoolal ay la ngay wayee mu ngi noonu waykat yi ah, loolu parenthèse la woon rek si waykat yi moo xobar xobar mooy wax du kenn anti stress la nee naa duma man du ma ragal du ma tàppet géejawaay laa juddoo màggee Grand Dakar yoroo fi nga xamante ne mooy Grand Yoff ah, fi nga xamante ne mooy Grand Médine 4 ci 4G laa jaar du ma tàppet du ma ragal lu waay wax tampi abonné leen aimé leen Salam Vision la ren ragal nekku fi. wala yéen sibu leen nakawaar mu ngi noonu ku war a sib nakawaar nag mooy ki nga xamante ni papam daa investir si moom yaayam investir si moom kooku sama benn xarit la ndeysaan sama correct la ñoo bokkandoo fi nga xamante ni mooy CI fii ci école CES si Géejawaay xam nga man yàlla dafa def dama fidèle ak ma fidèle man CI six fois laa ko def moo tax bu ma xasee ba am benn gel ay bu ma amoon gel damay fidèle man man man moo tax man bu ma amee gel bu ma nit baaxee rek damay toogaat yeneen heure soo ko mën a amaat keneen parce que sama xol mooy fidèle ba dootul bëgg après mais bu ma bëggaatee sama xol day fidèle kooku bari ki démb dañoo daje ndeysaan ba ñu dajee mu am doom ànd ak yaayam man ko yow màgg nga de yow bi kan boot nii mu ne ma bi ki mu boot sama doom la diplôme wuyul ma ne ko sa doom la nu mu tudd. mu ne ma diplôme ma ne ko diplôme li tax nga tuddee ko diplôme automatiquement nag mu rus yow sëgg boobu c'est l'émotion maam bi na ko tontu eh xam nga lu tax ma tuddee ko diplôme kii dafa jàng ba dem université pour wut diplôme ñu ëmbal ko fa doom ji juddu ma tuddee ko diplôme ah la xëy ay waa kon nag xanaa xanaa de chauffeur moom de chauffeur yi kon moom bu amoon doom moom xanaa client lay tudd ay la la laa xamal xamal anti stress la ay ca mu noonu ah fii ci Salam Vision lu waay wax tàmpi amul benn problème man nii laa def directement ki ma tiimoon nag dam la woon ayca sama cadreur bi daam daw nee naa la nii la toll waaye bopp bi macha allah lépp cadre la yàlla sa jàmm yàgg moor xobar xobar tu tasar dara du xew bienvenue sur Salam Vision.